ñooñu bu ñu ñëwee. jóge fii ba bëri. jóge daaw mbir moomu xew. muy bakkan raf si. loolu nag boo tax a ab passé am nit rek passé yaa taxaw loolu liggéey bi rek liggéey bi ndax jàpp naa ne moo di Sëriñ Tuuba. loolu ci demee moo di Sëriñ Tuuba. kon ñu ko da koy jox turam. bëgg liggéey bi xale yëpp tënku nañu. ñaan la ci soxla. ndax tegal na ko ci am alors li fi xew nga ci xew. alors soxla wu ci nag gis-gis. soxla wu ci yëpp ci ñaari ñaar ñi bëgg gis na ko. ndax li fi wut dëkk fi mu kenn te suñu borom barkeel ko ban weesu bii. nu defee Touba ca kanam. mu doon bàkkee ca kanam. loolu rek loolu rek say Mbàkke ca kanam. moo def bi mu def dañ koo rafet parce que ñun li ñu def nii defuñ ko kenn suñu bopp lañ ko defal. moom li muy defal dëkk bi devoir am la même bu nekkul woon maire da ko war a def citoyen la doomu dëkk bi la kon ñun li ñu war nañ ci nekk moom li ñu mën a appuyer mu appuyer mais lu tere nag lu ñuy def dañ ko ko yëgal parce que mooy kilifa dëkk bi moo def yaamal teg lii ñu def nii nag am nañ yéene boo xamante ne romb na fii te li ñu def fii am nañ yéene def ko fële gis mën naa ñëw ñu def ba ñëw coopération ak mairie Mbacké toj ko ay dóoraan goudron mu mën a nekk yaakaar askan rek li mu bëgg dina mën a nekk lii ab ñaax la si nekk waruñu koy ndamoo dañu koy léegi fa la ñuy dem kon Mbàkke defal nañu lu nekk nii heure bu bëggee julli bi la ñuy julli ñoo dem feneen ak feneen kon suñu yéene mooy lépp lu nekk Mbàkke surtout lu ñu wër ñu yeesal démb rek gars yi ñu ngi wax fii ne balaa ñuy julli it dañuy fexe biir bii nii ñu peinture kon monsieur le maire lan lay wax rek na nga ñun doomi du koñ bi doomi gox bi dañoo fas yéene lépp lu war état lépp lu war maire ñun ñu tàmbali ko ñoom ñu fexe yëpp incha allah rabi jaajëfal ñëpp nag sóob mag ñi jëm nii gone yi jëm nii mais biñ ko mag ñi gone yi soobee mag ñëpp a ñëw sëñ Ibrahima yi itam ñëpp da koy bàyyi na sëñ tun mais heure bi daan na fekk bu tëdd bàyyi cer noonu laa jaagoo nii bis bi fi njëkk a ñëw lañ adhéré wu xaalis bu bëri la fi indi jox ñu ko ak sëñ tun tamit la même chose ay bàyyi ma teer mii bis bi ñuy laaj fii moo njëkk a yëkkati parce que loolu mooy ngor jàpp naa ne lii ñuy def xale yi lañ koy defar ak suñuy doom ëllëg suñ bëggee dëkk bi jag nag ni ñoo war a tàmbali ñun ndaw ñi defar ngir ñii ñëw maire day defar ngir ñun mais ñun suñ ñëwee dañuy defar ngir ñi mais dëkk moom buñ bëggee mu jag faaw ñu nekk mag ñi tamit ñaanal gone yi li ñu yéene yëpp ñu mën koo sote si jàmm ak salaam maa ngi jégal bu baax a baax te mu ne ma diw bëgg la ma ne ko non bëgg na ma xalaatee ne bu ko waxee wala mu assuré affaire bi dox. noonu la waxee. mais jiw moom jiw bu baax. kon nag yéen yàlla gis. assuré ki dañ koy wax si benn rond point ak tamit yoon bu baax. loolu bi ñu koy def donc pour gën a sécuriser. beneen bi mooy jumaa ji dinaa jox laay peñ. nag li ma mën a wax daal mooy 2014 ba léegi ñeent ñu nag mooy dama fas trois ans boobu mu ñu def bañ naa ko Dakar suñu naan parce que quatre ans dañu fas loolu su ma ko defee résultat moo tax mënuma sacrifier sama lépp toog si tàngoor bi ma nekk ñëpp sans xel xamu na ma woo directement man sama téléphone 24 heures sur 24 woo waaye woo it naa la wuyu. mais xale yii sax bu ñu xewle woon woo ma. ñu waxtaan parce que seen droit la ñu woo ma ma ñëw wax ak ñoom. kon maa ngi baal ñëpp ak baal ñëpp.